ci war na jiitu ñoo war a nekk ca kanam ñoo war a nekk exemple kuy jëf ku ne ak foo mën a jëfe ci ñun nga war a royee ah ba tax na nag léegi moo tax ñu woote bëgg kenn ku nekk nga jàpp ci ñu fas yéene jublu ci liggéey bi ci biir loolu nag biñ ko tàmbalee diggante démb ak tey mel na ni am na ñoo xamante ni bii Eh, am nañ ab yëg-yëg ci biir loolu ñooña ki si ji ki si jiitu ku ñuy wax Njañ Fall bindu na ñaar fukki million man Moussa Mbaye bindu naa fukki million Ousseynou Wade bindu na fukki million Baye Diop ak frère ca bu njëkk ba joxe woon na dix millions huit cent waaye nee na du ci yem day dikkaat Abdoulahat Ka bindu woon na Xaadim Lu bindu na cinq millions Safa Gajaga euh, bindu na trois millions waaye nee na du ci du ci yem As As Jaxate bindu na dix millions Alla Silla ak ak ak njabootam bindu nañ dix millions Daam Jaxate bindu na trois millions waaye nee na moom it du ci yem Moustapha Sey bindu bindu na trois millions waaye nee na moom it du ci yem xaarim géey bu bàyyi sañ géey bindu na ñaar fukki million waaye waaw neen neen problème am ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo bindoogun am na nag ñeneen ñu joxe seeni tur ñu ñu war a ñëw waaye comme amaguma confirmation moo tax mu mën mënu ma na tudd leen am néew ak a bari bu ñu amee suñ cent million wala suñ deux cent millions nañ taxaw teg ko ci kenn ku ci ne ñi xam nga xam nga liggéey kenn ku ci ne xam nga sa kër nang ko doon liggéeyee buñ toog di xaar dara parce que waañ mu yàgg mi it amu ci njariñ suñ amee suñ cent millions wala suñ deux cent millions buñ ko xeeb nañ tàmbali kenn ku ne ku tàmbali ba joxe ñu ni la ah, dañoo joxe kat dañoo tàmbali bu nu yeggee ci cànk na kenn ku ne dem dolli dara ñu nekk ca ki nga xam ne dafa ñëw xool ñuy liggéey itam am tonub ciment mu indi ko ki nga xam ne dafa ñëw xool ne ñu ngi dem te dañoo fas yéenee dem mu gis ni am na tonub feeram mu dem indi ko waaye bu ñu fi nekk naan diw mën na nangam diwun mënu nangam kenn ku ne nag li nga mënta yéene ko yaakaar naa ñu tàmbalee tañ fas yéene xam ne bâtiment bee ñoo ko moom dana dana yegg. kon nag loolu nañ ci sant te ni nu ko sëriñ bi waxee nu dolli koo xam di ko jàngat te jàppe ko noonu te dolli rafetal sunu njort xam ne xew li du jeex mukk waaye nag luñ ci mën a delloo njukkal sëriñ bi nañ ko def luñ ci mën a delloo njukkal sëriñ bi it mooy dawal lu jëm ëllëg rek te jàngukaay bi kat kenn ku ne la nga mën yaa ngi ko ci def ñi nga xam ne ñoo doon tëral doxalin wi ci wàllu xam-xam ñooñu buñ xayma woon lañ ca doon fay ci koppar dana bari lool ña ko doon defar bu ñu dutoon njabootug Serigne Touba di taalibeem di boromi Pastef ay at lay doon ndax université ñu koy tabax ay ñeenti at juróomi at ñenn ñi fukki at sax jëm université Ndar bi keroog am na professeur boo xam ne bi biñ ko tàmbalee ak bi biñ ko ubbee fukki at ak juróom la te ngóor ko doon tabax lii nag at mi defe naa ne bu matee itam matagul te fee mu toll incha allahu taala barki démb rek ñuy wax seeb Abdou Ka ne dañoo bëgg tàmbali ñetti ñetti jàngukaay yoo xam ne dañ ci tàmbali di di di tàggatu di tàggat ñi jàngale di tàggat ndaw ñi di jubbanti ak a defaraat ndax ni nga ko war a defee moom tëral nañ ko ba noppi waaye nag tëral ciw kayit bokkut ak jëmmal ñu bëgg koo tàmbali wax ko loolu mu ne ma waxtu wu ngeen soxlaa ma daal di leen di jox ñetti saal wala ñeenti saal de classe yu ngeen mën a tàmbalee njàng